suñuy jaar-jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax na su ko xaaritoon jar danaa ko am. abonné wu ci seen bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. di ziare Serigne Omar Cissé. Cheikh Saliou Diouf mi nga xam ne. moo waral lii moo jël xam-xam bu sell seet ku sell mu def ko ci moom mi Cheikh Abdou Bopp mu tàllal bis bi mu taaru lool ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal saw fan di siyaare kilifa yi nekk ci sunu gannaaw yépp di wax ne sëñ Abdourahman macha allah te kàddu yi set na sell na jotal matal na xanaa dañ ciy sof rek ay kàddu waaye wax moom dégg su amee rek neex na ba pare te damay wax ne wax neexul déglu moo neex. wallahi bëgguñu woon mu wàccee kàddu ndax liñ ciy yëg ndax jamono dañoo réere loo xam ne mooy koom dawal nag wuti loo xam ne poñetu àdduna la tey réew mi bëgg dugg ci gaal yi ngir ne dañoo bëgg a tekki te ku tekkiloo loo takkul yaakaar naa ab sàcc lañ lay tudde ndax ñu njëkk ña liñ doon tiitaroo mooy dem wuti xam-xam laxas ngir wuti xam-xam léegi nag nit ñi dañuy laxas ngir wuti koom te koom-koom boobu boo ko amee loo ciy def tabax sa kër jënd say oto takk say soxna mais lii bu fekkee lii rek la ñu yàlla bindee ci kaw suuf wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni xanaa amatul njëriñ kon xam-xam la ñuy war a njëkk a wuti jàng nag réer nañ ko kii wax yàlla dañ naan la da ngaa tardé. la mu ne mbir la mu nekk ci xol mooy maarifatu billaahi kon xam doog a jëf la xam-xam la nag boo xam ne ci toppe lañ koy amee waaye deesuñ ko amee ci jàng ba yonente ba fa jiitu woon woote woon muy taw bi gën ci xam-xam bil itlaaq ci boyal boroom xam-xam yépp ànd ci nee na li gën ci xam-xam mooy tawhidu rabbana wéetal sa borom ndax jëf jum mën a doon lum rafet rafet bu ci bokkaale yàlla duggee yàqu na yonent bi la ko yàlla wax ne wala xat uuhiya ilayka wax yu nañ la wa ila allazina min qablika wax yuwaat ña la jiitu lan la in asrakta la yaxbatan na amaluka wala takunanna minal xaasirin soo bokkaalee yàlla rek sa jëf yàqu nga bokk ci woy perte ñi comme yonent la yàlla wax loolu astama keneen maa ngi dégg ci ta nettali sëñ Basiiru dafa woo doom yi ne ab garaat moom ndax nubuwa féete nañ ci féete na ko am na lu féete nuboo kanam ci kaw ñu ne ko déedéet mu ne pourtant de Ibrahima bàyyi ma nga safara yonent yàlla noohin jabaram ak doomam ñu nga sawara jaamu ji leen yàlla moo gën diway sama baay doomu diw kay rakkal la ñan ñoo ko soxla fas yéeg mbaam yi da ngay fexee doon diw Cheikh Moussa day ay doomam nam mel na leen def taxaw ne wooteelu ma Mor Khoreja wooteelu ma Sëñ Tubaa yàlla laa di wooteel allahu akbar ku jox sa bopp bàyyi maag sa bopp dinaa la yóbbu ci yàlla ba nga yég ko yow yaa koy yëg ah mais bu fekkee da lay yóbbu ci yàlla moom yëg ne àgg nga ci yàlla mu ne la àgg nga ci yàlla wérut yow yaa yëgal sa bopp ne àgg nga ci yàlla dama ne kuñ yóbbu bitim réew boo yeggee ki la yóbbu moo la koy yëgal wala yow yaa yëg ne egg nga fa nga yëgal ko sa bopp moo gën sëriñu jamono nag lan lañuy def boole ay nit téye leen la waxoon benn kilifa rek ma ne ko sëriñ Tuuba nee na la wa in ajasta an waradil mawridi fala taxu aqi min ahadi yow dajale taalibe ñu root te amul ndox moo leen jox nee na tënk ñu dem yeewi leen ñu dem léegi nag dañoo yeew taalibe yi ci askan askan te wa isaa nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma isin wala yatasaaluun yawmal xiyaam yàlla nee na suñ wolee bufte gi amul askano kon ñii dawaloon askan ñoom perte nañ wala yatasaaluuna duñ la ko laaj li nga xam ne nag amu fa te duñ la ko laaj boo ko fa yóbboo perte nga kopp bi ubbi na gerte lay jaay lay jënd nga indi mboq doo am xaalis indil tonu dugub doo am xaalis gerte rek moo tax yàlla lislaam rek la laaj yowmal xiyam wa man yabtaqi xayra al islaamu diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin min ladun aadama ila yawmina haza la ko commencé ci aadama ba fii te aadama woorewut nii ñu woore julleewut nii ñu jullee tey ñu bari doon ay murit wala ay tiijaan dañuy ne yàlla kenn du ko gis sëñ Tuubaa moom seetal na ci boppam nee na huwa lazi lam ara xayruhu wala arahu fi sa in hadawa na wala mooy ki nga xam ne musumaa gis ku moom li ngeen di naan du moom sax nee na musumaa gis lu dut moom ci loolu ndax moo ko gindi moo ko ko may yow mi taalibe mu fa kullu man raasi wallahi ahad fi ayi sayin fa huwa murtadun jahad ku xol dara ba gis lola te nee giso gisoo ca yàlla nee weddi nga diine murtad moy ki delu gannaaw genn ci l'islam jahad doyo kuto mu weddi l'islam ki gisut yalla lol la seigne touba wax kon yow mi taalibe bi lolu murid li lolu yow mi ne gëwuma sëñ Tuubaa yow alxuraan a wax ak yow faatiha bu fekkee doo gis yàlla bul jàngati faatiha wala boog damirul mu xaatab bi ci nekk na ko soo amee droit dindi ko iyaaka iyaaka yow li ñu wax koo jàkkaar loolu ah yow koo gis rek la iyaaka nax budu wa iyaaka nastahin ki dul gis yonente bi buy taaya bu mu wax assalaamu alayka damirul mu xaatal bi kon ndeke ci biir julli gi ngay julli war nga fee gis yàlla gis fi yonente bi waaw waaw moo tax nag sëñ ne la yaa man yara xayral ilahi rabba wa xayra afdalil wara muhibba nasaha min sadrika rabbi nuura yow mi gis keneen ku yàlla di gis geneen ku dut Seydina Mohamed mi soppeeb yàlla na nga xam ne leer yi nekkoon ci sa dënn yëpp yàlla rocc na ñu ne ko Bàmba luy mu ne kul bil muniri taaliban mu ne demal ci ku mel ne Cheikh Saliou Diouf sàkku ci fa leer mu leeralal la xam nga nit ñi sëriñ bu dee lañ nangu tey boo nee sëñ Fallou rek ñu ne waaw nga tudd ko dee ñu ne waaw nga tudd ko dund ñu indil ko ay sikk te man damaa yaakaar ne boo demee garage oto démb nga fekkoon ko fa tukki woo oto tey bi gaare boobu dem na te du dellu nga ne bu démb bee ma doy yaakaar naa ne doo tukki ànd ak mu taw ba tooy ceebu bi nit ñi ji nga ne ah nga xool ko ba mu neex la nga ne bu daaw baa ma doy naroo góob loolu moo dal ñu bëri yàlla ñi dee waxut ak ñoom ñiy dund lay waxal xasa kitaabu naa yantiqu aleykum bil xaq baatub nut ko mooy lan wax ah? lii mooy sama téere bi may waxee ci yéen dëgg sëñ Tuubaa ni ana kitaabulaa gaa ñi ne ko Bamba nuñ koy waxee mu ne bu dee bim bindulu mooy bi ngeen di jàng bu dee bim bindal boppam mooy bii waaye nañ wax nit ñi dëgg waay yàlla nit la bind téere bi nit a ko bind li yàlla bind ak li nit bind lu gën dañuy caaxaan billaahi wallaahi dangay xool téere bi ba sa bët yi mi yopp nga dem wuti ay weer te li ngay wér doo ko gis mukk ndax mu ngi ci wa fi anfusikum afala tubsirun ku nekk na ko xool ci boppam soo xoolee sa bopp gisoo ko def laa jege ba mu ëpp sa yéen yi soo ko bëggee gis da ngay wuti seetu mu won la ko sa bopp soo ko bëggee gis xam ko da ngay dem ci ku gindee ko ci yàlla mu won la ko soo ko defut rek perte nga toppe faw mu am ah léegi nag ñu ci bëri tey dangay gis ñu am xéwal gu bari màggal jot ñu rey ay gëlëm nag man li ma sëñ Touba defal te boo xoolee lam ko defal yépp ku taxaw di saw gëmut sëñ Touba moo la ko ëppale billaahi taalibe yi ku ci ne diw sëñ diw defal na ma nangam boo ko laajee loolu xéewal la lay wax te tubaab bee la ko ëppale nit ñaa ngi daw di wuti tubaab yi ngir am nga naan sëñ tubaab defal la lum la defal koo xam ne soxla wutoon ba yorut poos ah mu ne neex àddina neex àllaaxira mu ne yàlla defalu ko kenn bu ko doon defal nit mu defal ko rasulullah yi am na ñaari weer yoo xam ne cin tàkkul këram te nee na xiif bu mu daj màkka nee na maag samay doj ñooñ daj nañ ko mbàkke te mu ne wa umri ilal jinaani hiidu sama dund ba àjjana féet la feet la kon ban feet la ndax feetu lekk ay ganaar la du kon nañ bàyyi waat xel nit ñi nañ xelu nit bu indee xolam du sotti na indi xel mi gis nga li ñuy wax xel yëpp nangu na ko xol yi ñoo koy bañ sama xel mi ma tooñ mukk sama xol bi rek seen xol yi ñoo leen tooñ seen xol yi ñoo tilim kalaabal raana ala xulubihim bi makaanu yaksiboon loolu rek a leen jàpp te sëñ Tuubaa du wax himaayatul xal bi laa yaxfa ana ahad e, nu mu wax sawaahidullaahi laa yaxfa ala ahadin ila ala ahadin isqaauhu irtasama mu ne sawaahidullaahi jàkkaarloog yàlla laa yaxfa ala ahadin nëbbuwul ci kenn ila ala ahadin lu dul kenn koo xam ne isqaauhu ak texee dem irtasama bind nañ ko kooku rek moo dul gis yàlla yawmal xiyaam gaa ñi di ko xool fu sori mu ngi nii yonent bi sallallahu alayhi julliwut ci jàkkay Madina ne wan nañ ma àjjana fii ci miiru jàkka ji su ma ci wattoon benn doom jox ko jul ñu lekk kenn dootul xiif te ñu ne yonent bi lañ ñu royloo te ku wax loolu gaa ñi ne la ah? yonent bi àndut ak ay amul benn waay bu ñëw ci moom ne ko man de demaa njaaloo te am naa jëkk am naa am naa soxna yonent bi ne ko bu bu la yàlla suturaalee suturaalal sa bopp waa ji topp ko di ko répété rek ba mu ne ko wool nit ñi ñu wooy nit ñi ñu rey ko ñaari ñu mel ni maam moor rek naan ko ah waa ji mu topp ci ginnaaw ne moo ko tey xam na ne bu ko waxee yonent bi da koy reylu yonte bi ñëw ba tollook meddu mbaam mu ne leen yaa saani yéen ñaar ñii lekk leen lii lekk leen lii ñu ne ko lu tax mu ne yéen kat ki ngeen di jëw gis naa ko muy diri ay malaanam ca ajana waaw kooku dugut ajana te yowmal xiyam taxawagut bu fekkee yowmal fiñ koy xoole la innahum yarawnahu bahidan wa naraahu xariban léegi benn waay dama ne ko daf ne ma dama ne ko alxuraan fan la nekkoon avant muy ñëw ci àddina mu ne umul kitaab ma ne ko saar yëpp yëpp umul kitaab lañ nekkoon mu ne ma waaw ma ne ko kon isa jaa nasrullahi wal fatxu ban fatxu la doon wax mu ne fatxu màkka ma ne ko déedéet yow nee nga alxuraan moo mag loolu isaa jaa googu lan lan la doon wax ban fatxu la doon wax ñu ma yéen nag da ngeen a doy waar lool ñu ko déedéet maanaam nit ñi dañoo war a xam ma ne ko fatxu bu fekkee fatxu màkka la ma ne loolu nañ ko dindi dootul am ah ma ne ko des na beneen de yamhu laaha wa bit wa indahu umul kitaab yamhu laaha wa yusbit wa innahu umul kitaab boobu ban la fi ñuy faree ka kaamil bi gis nga fuñ ci far ak fuñ ci saxal gis nga ko déedéet loolu ku mel ni Cheikh Saliou Diouf mooy xool ci lawhul mahfuz gis taalibeem boo xam ne dañ ko bindoon ci fu texee di fi mu bind ko fa texe da koy far bind ko fële ah allahu waliyyu lazina ci yuxrijukum mina zulumaati ila nuur yàlla moom ngi woy gëm yi génnee leen ci lëndëmuk bokkaale dugal leen ci leeruk tawhid nee na yàllaa koy def a ah, am na gaa ñoo xam ne fii ñu ngi woon ci lëndëm xam nga nit mën naa gëm te nekk ci lëndëm ah yàllaa ko wax di dañoo gëm yàlla te nekk ci lëndëm ñëw jokk ci sang bi mu génnee leen ci lëndëmuk bokkaale boobu dugal leen ci leeruk yàlla ah kuy dox ci leer da nga gis kàmb waaye kuy dox ci lëndëm nag doo gis kàmb gis nga safara ku ko jéggi ku siraat doo ci dugg te ku gisul siraat da nga tàbbi ci sawara <laughs> noo nooy jéggee yow da nga gumba texlu su mun bug mun um yun fahum laa yar ji hoon mas naa ko wax ci kuppantum benn waaye ci la ma jàppe ba léegi ndeysaan sama xarit la jël na sigar mais dafa doxut mu ne ma man baat bi dañ koo wax fekk ma tëdd sama laal waaye ba bët sët ne la waatuma dama ne su bukk mun om yut fahum laa yar ji woon ma ne ko ki gumba tëx luu luu mooy muuma ma ne wàcc village 1 ca Koupentoum gumbaa fi tëxe fi luwee fi waa kii foo koy delloo munta wax ba ne béréb sàngam laa bëgg dem mënta gis boo xam fi mu jëm mënta dégg ba nga wax ak moom kii foo koy delloo ah bu ko fay fekk rek jël billahi wallahi afaman yamsi mukiban ala wajhi ahda afaman yamsi sawiyan ala siratul mustaqim ah wallaay bokkuñu kon nan bàyyiwaat sunu xel yi te xam ne yàlla bu ñu indee ci àddina bi ngir ñu xam ko la suñ ko xamee ba pare nag nañ wuti bu ñu wutee dinañ xam fiñ koy def waaye wuti te xamagoo yàlla dootoo xam yàlla ndax ku wax nga ne ko ah dafa tàrde billaahi te ku amul xam-xam am alal saytaane lay kondi kondi rek lu bon rek ngay bëgg parce que lek ba sour jamo yàlla xamo yàlla ci moy yàlla rek nga koy resalé te kuy koy resalé ci moy yàlla bu ëllëgee sawara rek seigne touba ne wa in takun aakila wa anta fi kulli samanin wa walam tatub li talabil xufraani mujtahidan fa daaqilu niraan nee su fekke warsagu yàlla wi dang koy xewlo te waxtu wone yow fo rek ngay def tuuboo gaaw dellu ci yàlla nee na yow dangay ngay dugg sawara léegi te billaahi am na ñoo xam ne màggal bu jotee walla gàmmu jot billaahi lañ fay nekkee lu naqari yàlla lay doon tabaxal ci yàlla lu toll ni ni ko ki kaafu printemps yàlla tabaxal la génne ci gisoo kuñ tabaxal fii kër te dugg ci ah kër ya pare nañ bu yàgg waaye boo ci waxtu dugg doo ci dugg ndax ku nekk am na kër safara kër ajjana te boo demee ajjana sa kër safara ku fay dëkk kenn fa dëkk parce que yaa ko moom wa kasaalika itam boo demee sawara it sa kër ajjana ko dañ bàyyi loolu loolu bonus la buñ la transféré message su 100 pour cent crédit boo jëndul crédit da nga gis 100 pour bi wala 300 pour cent waaye doo woote mukk lu dul da ngaa jënd crédit kon tabaxal junniy jàkka te xamoo yàlla booy dee di dem sawar te sëñ Touba na wa luqmatun tasuddu batnu jaa'ihi xayrun min binaa'i alfi jox mu lekk moo gën tabax junniy jàkka kon dañuy tëj suñu kàddu ci waxu sëñ Mbay Jaxate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 tay jëf-jëf ci bon ñu nga tay ci sét ya ñuy cawi ya tollu toll dégg rek alquran ko wax di afalam yahdinahum kam ahlakna min alqurun yanzuna fi masakinihim inna fi zalika la ayatan li uli nuha nee na bi tax gindi wolé bari nañu ñu alak ñu ngi dox seen biir kër yi dañ leen ko ustaas yi waay comme gis nañ ko أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته youtube